jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñu ni waat leen ci gën gi nuyu dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi dañu koy door ak ndaje wi nga xam ne nag euh, ñu ngi ko doon amal mu soxal euh, réunion wu conseil national bu consommation xam ngeen ne lu ni mel faaw mu am ngir rek ñu daal di euh, jëmmal njëkk yi nga xam ne itam daal dinañ koy wàññi ci yenn ci ay produits yi fii ci réew bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu commerce moom Serigne Gueye Diop la mu xam ne nag moom moo di dogal woowee dina bir ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal maanaam maanaam altine buñ ci noppee itam eh, daañu teg ñenn ci ño xamante dinañ taxaw tém ngir saytu képp ko xamante ni wul eh, njëg li nga xamné nak eh, mom lañu la ci yenn ci ay produits Abi fay mo téwon ci bobu le dajee reportage ci waxtu yu mujj lañu ko seen mu tok ci bir salle bi ngir bokku ci conseil national de la consommation du tuk fédération bi ngànk boulanger yu Sénégal yi néwon du bokku benn yoon ci bilek ndaje jëwrin gi

1000 volontaires dañ ci pour mesure individuelle inshallah nous bëgg souveraineté économique alimentaire dañ ko encourager réorganiser la distribution mettre en place des magasins de référence en attendant de meilleures politiques d'approvisionnement sur l'ensemble du territoire politique Sonat dañ ko gëna euh, pour faire ay magasins sur l'ensemble du territoire pour que ñu distribuer les produits li nga aussi réflexion dañ ko continuer ak yéen ñëpp pour gën a am améliorer li nga xam mooy. xam ngeen ne lenn ci ay njëkk yoo xamante nii nag eh, teq nañ ci aslëf bokk na eh, ci li nga xam ne nag moom moo di eh, ceeb bi diwlin gi ak itam li nga xam ne nag moom moo di sukkar ci ndaje wu ni mel bëri na itam ci ñoo xamante ni mbir moomee nag ñeel na leen te ñu teewoon ca la ñuy laaj itam bokk nañu ñu gën koo jëmmal abi fay lañu ci àndal ba tey. ca waxtu yu mujj ya lañu ko seen mu toog ci biir salle bi. ngir bokk ci conseil national de la consommation moom njiitu fédération bi ngànk boulanger yu Sénégal yi ne du bokk benn yoon ci bileeg ndaje jëwrin gi taxaw tëmb ne faw njëg yi wàññeeku rawatina nit mburu mi ñu jole ko ca fanweer ak juróom yóbbu ko ca fanweer Amadou Gueye moom nangu lii donte sax àndu ci mais sachez que li ngeen wara xam moy ñun nangu ñu ben yoon ñu wañ ci 4000 francs ci li ñu d'accord moy ñu wañ ci 6500 francs moy farine gi dinañ nangu nak wañ juroomi deureum ci kilo mburu mané du ñun ñoy ñi galankor liggéeyu jëwriñ gi compagnie sucrière bu Sénégal ñom lañu bëgg moy ñëgu kilo gi jar lu tollu ci témèr ak ñaar fukk ak juroom ministre bi ne dette ci témèr ak ñaar fukk kep la lolé doonut la leen gënal. xool leen ñun euh, li ñu proposé woon mooy 625 loolu lañu bëggoon que ñu def ko lii di 600 mooy li ñu gënal waaye boo xoolee 600 moom la jëwriñ gi jël. léegi nag faaw ñu mën a xam diir gi wàññi gi 600 yi moom wax dëgg ñun attanuñu ko. ñoom importateurs yi la ñuy sàkk moo di lii mu am ay mesures d'accompagnement. mais ñun aussi euh, wàññi bi bu ñu wàññee il faut mu am ay mesures d'accompagnement yoo xamante ne. moom moo ñuy jàppale pour ñu mën a supporter wàññi bi parce que notamment charge yi ñuy am comme euh, droit de douane xam nga am na charge yu bëri yoo xamante ne importanteur bi da koy am euh, te nit ñi duñ ko xam charge yooyu il faut état bi jàpp ci. UNACOIS yeesal di woo ñoom acteurs yi ñu jëfee ndigal li. ñoom ñëpp dama am na ci ñoo xam ne 70 virgule 5 pour cent yi ci sama njaboot lañ bokk mais dafa am loo parce que fii di wax loolu parce que mënuñu fexe ba nga noonu ba ñu demoon ci prix aujourd'hui il faut ñu appliquer nii failles yi ci am ci seen ndànk-ndànk mais tey du xalaat fekk loo xam ne ci nga taxaw naan ànduma ci ñi marché lay am yi léeg masiir nag daa tax ñu gën a mën a saytu waaye tamit gën a mën a xam njëg yi fu mu toll fii ci biir réew mi jëwriñ gi wax li lii nag des nañu koy door altine gii Abi Faye jaajëfal bu baax a euh, France mon euh, président de la République du Sénégal euh, Bassirou Diomay Fay, Dalne ne amal aw doxub nemmeeku ci ki nga xam ne nag na fi bu ci mi Abdou Diouf mu soxal itam ci loo xamante ni ko ci ay Twitter Mom Basirou Bassirou Diomaye Faye mi ngi di wax rek ne président Abdou Diouf ak itam li nga xam ne nga xam ne ah, moom la ñu ko dalal naka noonu itam mu koy ñaanal wér gu yaram ak itam dund lu yàgg lool bu wéy ba tey ah, ci rek ah, di ko conseiller ak itam xam-xam wi nga xam ne am na ko moom président ab du Diouf président Bassirou Diomaye Faye moom moo yëkkati yooyu le kàddu gis ngeen ko noonu ci image yi mu demoon seeti ko. aywa mbokk yi ñu waxtaanee leneen mu soxal njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen itam lu soxal examen wu CFEE ak itam concours d'entrée en sixième daañu ko amal ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin directeur wu examen ak itam concours ni ki tey jëlee mi ngi doon janoo ak way taskatu xibaar yi di wax nag mbir yi ana yan matuwaay lañ ci jël lu mu ci mënti doon Alxasan Ba ak Ababacar Camara teewoon nañ ca boobu leen dajee reportage daanaka jumtukaay yëpp yóbbu nañ ko fi mu war a dem at wi lu toll ci 301 820 candidats ñoo bindu bokk na ci 170 266 ci ay jigéen ñu ngi leen tasaare ci lu toll ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti centre ministère mi yor wàllum njàng mekk njàngale mi jël na matuwaay yëpp ngir lépp mën a jaar yoon. boo jëlee directive bu mel nii euh, bi nga xam ne ci wàllu candidat yi nga xam ne amuñ extrait de naissance. Euh, premier ministre joxone ci dogal ministre de l'éducation nationale dafa def dérogation euh, candidat yep, ku am extrait ku amul yep, di nga def te fim nek ni may wax ak yeen am na mécanisme yo xamné inspecteur d'académie taxawal nañ ko ak IFI e pour fexé ba candidat yo yep am extrait de naissance. ci walu jumtukaay yi ñi soxla day bari ci euh, matériel ci walu copar waaye loolu yëpp ministère éducation nationale fexe ba fexe na ba loolu yëpp ñoŋ na. bokk na ci candidat yi téeméer ak fokk ak ñetti ñi nga xamante ni dañu am jafe-jafe pour gis wala ñenn ñi sax duñu gis ngir fexe ba ñëpp yem ci wàll wi jël nañu ay dogal ngir jàppale leen ngir ñu mën a def épreuve yi. ñi nga xam ne dañoo am euh, jafe gis-gis ba nga xam ne duñu gis dara ñoom dañoo transcrire épreuve yi en nga xam ne dañ koy mën a lire ak seeni

ba ba constituer centre commission yi nga xamné ñom ñoy examiner xalé yi ba ci publication résultat yi lepp dañ ko numériser lepp dañ ko digitaliser manam dañuy utiliser xarala yu yu yi dafa am li ñuy wax jeexital jeexital yu am solo. épreuve yi dañ ko jox candidat yi ci réew mi ak ci bit réew lu ci melni Gambie ak Guinée Bissau talaata ñaar fukki fan ak juróom jàpp alarba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin gii ñu nekk directeur mi yor wàllum examen ak concours sàkku ci wayjur yi ñu gunge seeni candidat ngir ñu bañ a tardé wala sax ñu bañ a absenté wu bokk na itam ci li ñuy tere ay téléphone portable ak ay calculatrice at wi résultat CFE ak entrée en sixième la ñuy joxeendoo benn yoon aywa ñu des ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ba tey jàppale ne nag jëwriñ ji ñu dénk wàllu formation professionnelle ma nga woon ca diwaan bu Thiès ngi rek daal di euh, euh, saytu ñenn ci ay ndaw yoo xamante ni nag ñu ngi euh, sëgg ci examen bu bac technique bi ma nga woon nag ca lycée technique François Xavier Ndione naka noonu itam muy xirtal ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ñu gën a sóobu ci wàllu formation moom Moustapha Sarré lañ leen digtal ay kàddoom ci micro Cheikh Anta Diop. dañoo ñëwoon tey Thiès génn tuuti Ndakaaru. pour xol lan naka lañu organiser baccalauréat bi fi ci Thiès jóge nañu Dakar visiter ay établissement waye dañoo ñëw fi Thiès mi nga xamni moy buntu kadior euh ñëw xol ci naka lañu organiser bac dañ ci profiter waale nak visiter waale lycée bi bëggoon nañ ko def amon nañu mébét bi depuis très longtemps mais occasion bi mo ñu mëna permettre ñu ñëw visiter té ci euh, taxawayu proviseur moom moo ñu won lycée bi vraiment ñu kon am ci mbégte lu rëy rëy rëy gis nañu ne surveillant yi doy nañu wax nañ ñu ne classe bu ne am nga gën gaa néew ñetti surveillant waaye it élèves yi tamit def nañ ci seen jom ndaxte constaté wuñu benn retard élèves yëpp ñëw nañu à l'heure pro amul benn incident loolu dañu koy rafetlu tey ñaanal élèves yi rek yàlla dimbali leen ba examen bii ñu dugg ñu am ci ndam fi mu nii lycée bi dañuy dem ba dootu mënuñoo jël sax ñi bëgg a ñëw ci lycée bi loolu wane na ni liggéey bu mag le proviseur bi ak personnel bi def ba formation professionnelle nekk léegi lu nit ñi bëgg a def ñun loolu mooy suñu objectif fexe ba formation professionnelle dootul nekkati weneen tànneef ndaxte généralement lu ñu daan gis mooy ku échoué ci école rek yaa ci ngay soog a tànnee formation professionnelle waaye lu ñu bëgg mooy xale bi ba muy nekk ndaw mu tànn ne moom dafa bëgg a def formation professionnelle te loolu nag mu ngi commencé bëgg am Sénégal suñu objectif boobu lycée bi mi ngi ñu ciy jàppale te jàpp nañu ne balaa yàgg incha allah formation professionnelle dina jël place ba mu war a jël ndaxte formation professionnelle falas réew mi war a jaar pour développer wu te loolu ñun xam nañ ko te dinañu def suñu kemt lay kàttan ba mu jël place bi mu war a jël fii ci réew aywa ginnaaw njàng bi ñu waxtaanee kër docteur nees def ba gën a mën a bàyyi xel ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di aji tawat ji bu ñu yeggee itam ci kër docteur yi ñu mën leen toppatoo toppatoo bi war lu ni mel xam ngeen ne moom moo sabab ndaje wi nga xam ne ah, daañu ko amal ñaar fukki fan ak juróom-benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi nga xam ne ah, moom la ñu ah, nekk ñi amal nag di réseau des des hôpitaux d'Afrique ak itam Caraïbes bu océan ak itam Indien ñoom ñooy rek def boobule. bés euh, naka noonu itam lenn ci lo xamanteni nak ñu ngi ko koy waajalee tax nañu ñu aw ndaje Khadijatou Sarr euh, kebe mom moy euh, njit li Aminata Mbaare saw mo taataan ay kaddom objectif am journée yi moy nan la ñuy mëna def ba bu ñu fi joggé ñu am une feuille de route bo nga xamni dañuy institutionnaliser réseau qualité bi day doon lo xamni da fay continuité da fay sax. Mm-hmm. day sax ci ci ci organisme ci hôpitaux yi te dina des critères de performance et d'octroi de de moyens donc da dina ci kanam mais li am solo ci journée ministre de la santé ubbi euh, réunion technique bi Sénégal ak yeneen dëkk yi am euh, tracé parce que du course de vitesse course de fond la. Mm-hmm. daw du profito mais euh, step by step. Mm-hmm. ndànk-ndànk dinañ ko topp ba ku ci nekk fa nga bëgg a yegg boo amee volonté bi di nga fa yegg. aywa ñu waxtaanee doxub ñaxtu yi nga xam ne nag euh, ñu ngi ko doon amal ngir ñu bàyyi ñu ñenn ci ñoo xamante ni euh, teg nañu leen loxo fa nga xam ne nag moom moo di ca Burkina Faso Amnesty International section Sénégal moom moo doon amal lu ni mel Seydi Gassama itam dal na ci tottal yenn ci ay kàddu Modou Fall moom moo ko taataan. n'est-ce pas li nga xam ne moom la ñuy def dafa safano ak loo xam ne mooy ak ak yellu doomu aadama ndax tey dañuy dem ci benn dëkk suñu leen attaqué ci dëkk boobu rek suñu attaqué armée ci dëkk boobu rek dañuy wëlbatiku accusé ñi dëkk ci dëkk boobu de complicité ak armée maanaam dañu ànd ak rébellion bi ñu daal leen maanaam rey wala boog ñu ñu jàpp leen torturer leen te loolu yëpp yenn saa dañ koy filmer doo ko def ci réseaux sociaux yi ñu ne nag kenn du wax kenn du wax ku wax ñu jàppale tëj la loolu moo daal GRV Camp

tribunal de grande instance de Ouagadougou dafa waxoon nguur gi nañ ko bàyyi ndax defu dara loo xam ne dafa war nañ ko mën a tuumal ba di ko téye ñu bañ exécuté loolu cour d'appel Burkina Faso wax leen encore nañ ko bàyyi ñu def nag yi fi tàppale jéem jëli ko ci kasu ba yóbbu ko ca bind bu buntu këram ñu ne ko signal kayit ne dañ la bàyyi mu signé kayit bi gendarme daal di ne ko cebet yóbbuwaat ko ci kanti gendarme daal ko téye foofu kon yëfi tàppale yooyu yëfi dictature yooyu moo war a jeex Burkina Faso moo tax dañuy taxaw tem di koy xeex li première action la waaye dinañu continuer xeex bi ba bees bi nga xam ne bay nañ Guy Hervé Kame ak ñeneen membre mouvement wu Balai Citoyen ñeent ci ñoom jàppane leen tey solo leen téer ñu armée leen fetal ne nañu dem xeex contre les les les rebelles te loolu du liggéeyu aywa office nationale bu assainissement du Sénégal ñu gën koo xam ci euh, l'ONAS leen ci ñoo xamante ni nag euh, ñoom ñoo fay liggéeyoo mer ba futtu la ñu def ndax itam bëri na ci loo xamante ni teg nañu ko ci table bi te itam ñuy sàkku ñu daal di koy jëmmal lu ni mel euh, moom moo sabab seen ak naqar googe Mbaye Seck Ndoye moom mooy secrétaire général bu ba fa ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Pathé Anne ndax xam nañ ne Dalifort moom bëri na jafe-jafe lool lu jëm ci wàllu dëkkuwaay yi. lu jëm ci wàllu assainissement bi lu jëm ci wàllu tëli bi mooy lépp loo xamante ni ak ñàkk kaaraange ci la bokk te xam nañ ne nawet baa ngi ñëw ak salte na lool wax dëgg fa yàlla te kon ne gis na ne canal yi it mi ngi am jafe-jafe waaye rawat na nag sunu bayaal bii nga xamante ni moo nekk fii moom lañ leen wan léegi nii muy loo xamante ni lu teguwul fenn la teguwul ci yoon lépp loo xamante ni mbalitum Ndakaaru mi rek fii lañ koy indi der yi nga xamanteni ni mooy ko seras yep ñi ngi koy indi fi nga xamanteni ni bayal di ni bo duggé ci bayal bi da ngay japp ne fi sa kanaa ne nit wurtu fe mëna jaar ta wenn yoon lañ am ci dalifort fi seras nga xamanteni ni mu ëmb ñenti quartier yep moy Touba seras daru salam mour matissar ak diggo lepp jafe-jafe buñ am ñun ñep moy li nga xamanteni ni bayal bi ni waye ku ne gis na tali bii ni bu yalla ji tawé tay ji ni ñun jeexna dootuñ mëna am fuñ jaar ndax liggéey ba ñu ko monsieur le maire tàmbalee ba léegi ëpp na juróomi weer boobu ba léegi mënuñoo fexe ba tëli bi ba tëli bi yegg sax ñuy woo nag président de la République ne ko bëgg nañ mu ñëw Dalifort gi mu jubbantil ñu li nga xamante moom lañ soxla dem nañ ci kilifa yëpp mbokki ñeneen ñu mer ba futt bokk na ca askan wa yeewoo ca Ndiougakel xam ngeen ne aw commune la woo xamante ni nag ma nga ca pataax siin amuñu ndox amuñu courant yoon ya ay jafe-jafe képp dong la ñu ciy jànkonteel tax na itam ñu bëgg ñu daal di leen di ah, fàttaliku bu defee ah, jafe-jafe ñu nekk ñu mën ci ah, jugee Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey reportage dañu dem sax ba tàmm ko bés bu jot fajarteel la jigéen ñi di njëkkante ci teen bi nga xam ne daanaka moom rek moom moo am ndox ci village bi di kel ngir rek mën a am ndox robinet yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci kër gi nee ñu saa su nekk day wow kong du am benn ndox. teen bi dafa xoor métti na lool sonn nañ boo demee balaa cinq heures nga dellusiwaat ndax root gu métti rek boole xool du wol ak soq ak ut mat yu métti nag. ndax ndox bi moom day manqué fi mu ne nii du ñu tëdd euh, trois heures du matin sax ndox bi du ñëw dañu toog ba trois heures ndox bi du ñëw suñu xale yi bu ñuy jàngi du ñu am lu ñu sangoo sax amuñu ndox balaa ngay gën a xalaat sax nga am xew xew xew bu buy ñëw fii doo tëdd doo nelaw doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg ndax xalaat ndox amuñu ndox sonn nañ torop torop torop torop gis nga mbaam yi la ñuy roote bidon yi dañoo dañoo maanaam dañoo rootarot ba xuugi xuuge daal xuuge Ndiougakel village la bu feetee ci commune bu Patar Sine ñi fa dëkk nag saa su nekk dañuy am ay problème ngir am ndox mu sell loolu nag moom moom métti ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ci village bi ba ñu def ab doxu ñaxtu wane seen naqar parce que gis nga teen bi ci ginnaaw mom la ñuy roote gis nga kër yi ñu sorante ay mètre ay kilomètre xam nga lolu mitina na exemple tay yow bo umbe ba 10 bu du pan fukki pan wala fukki pan ak ñaar xam nga lolu neexul soxna ci li nga xamni mom modi di courant itam ñu ne dafa manqué ci juga kel ñu bëgg ci safara da ci am solo parce que gis nga askan yépp am nañu ay portable ngoy la ñuy portable wala patar suñu digënté ak patar ñaata kilomètre la xam nga loolu mi neexul. dëkk bi li nga xam ne mooy suñu manka bi nga xam ne mooy manka bi nga xam ne mooy benn fe gën a fes mooy courant bi nga xam ne. tey gi ñu ngi koy jambat lan moo tax muy mu gën a yi nga xam ne maanaam dëkk yi nga xam ne jigéen nañu am nañ courant te ñun mënuñoo am courant te nag ñu bokk ci commune bi. Dioguakel nag village la boo xam ne ña fa dëkk nee ñu dafa pauvre amul dara mbay mi nga xam ne moom la ñu yaakaaroon daanaka doxatul ndax amuñu ay moyen looloo tax nag ndaw ñu bëri fi mu ne jóge ca village ba dem wutali ci ville yu mag yi aywa doxub nemmeeku euh, chef d'état-major euh, général des armées mi amal ca euh, Fouta mon général Mbaye Cissé Nak Dal dinay gën a ñaax ñi nga xam ne ñoo di way yi bu ko samba Boy, yoo Munes Nanyo, mënees Bamchonopetam, defi njombe ci itam nay rafetlu bu Sénégal ak yu Mauritanie seen Dego, Nutelu, Ali Bandelion, ñoo ba Bumatam ca reportage le cantonnement militaire général de corps d'armée ici c'est Cissé dal xel bu que terrain bi a aussi motivation bi ñu xam nga aussi euh, les nga ñëw terrain bi euh, soldats yi un ndax euh, ñu les pour ndax ngi loxo aussi ndax lu bu ah, warugar moo ñu xool naka lañ koy jubantee ah, balaa may jóge fii nag lu ma mun a wax mooy nag man li ma fekk fi ah, kontaan naa si gis naa fi ay unité aussi bien à Podor que à Matam yoo xam ne ay unité engagé lañ ñu ngi def liggéey bu mucc ayib lu ñeel nag xeexum banditisme ca frontière yi rawatina sax ci wàllum terrorisme chef d'état-major général des forces armées bu Sénégal daal di bëral nuyoo naataangoom ba nekk ci réew Mauritanie bi mu jàppee ni joxante nañu loxo ngir xeex ak fléau yi maanaam ay année ñi nii ñu wax ñoom dañu lëkkaloo ci wàllu dex gi ci wàllu suuf bi ak ba ci biir géej gi dañu lëkkaloo suñu ñaari armée yi di liggéey pour aar ñi nga xam ne ñoo ko bokk parce que xam nga léegi euh, li ñu koy waxee rek euh, yàqu-yàqu wala péril wala menace terroriste moom amul frontière moom fu ko neex mu dugg mais ñi nga xam ne ñoo seq frontière bi bu ñu boolee seen xel ak seen xalaat euh, yàlla mun na def bu ñu boolee loolu yëpp dinañ ko mun a aar ci loolu lañ nag ma ci profité di encore di gërëm sumay mbokk suma homologue le général de division Chaban chef d'état-major Mauritanie ci xarañam ak engagement am liggéey suñu côté at yi yëpp ñu koy def ci anam bu rafet ah terre air mer ak ci ci fleuve bi pour aar ñi nga xam ne ñoo ko bokk. sax ab collaboration bi mu jàpp ni buñ ko toppee mooy wéyal yokkum karange suñu ressource pétrolière ak gazière yi nga xamante ni tàmbali naa meññ. diggante ñaari réew ñu ñun ba pétrole bi génn ñuy soog a xool ni ñuy def balaa pétrole bi di génn ak gaz bi ah jëloon nañ suñu matuwaay yu yu mat sëkk.

Sénégal ñoom ñooy taxaw nii si biir géej gi lëkkaloo di dow pour aar li nga xam ne moom la ñuy liggéey. bu feggoo woon nag ak colonel commandant zone militaire numéro 2 bu bawoo ci ndar fekk si nag kii jiite 32e bataillon d' infanterie bu Ourossogui chef d' état major général des forces armées laata muy jóge ci gox bi dalal xelu askanu Matam. ay aywa ñu waxtaanee wàlluk caada xam ngeen ne ñaar fukki fan ak benn ci weer wu ñu ne daañu màggal euh, musique tax na itam suñu ndaw yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk euh, ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal daje ak Ndeye faatu Fall xam ngeen ne euh, moom mooy caatu jabu sekk la Saint-Louisienne waxtaanee na jafe-jafe yi nga xam ne nag moom la ñuy dund baat ak tontu digganteem ak Ousseynou Diop. baat bii mooy baatu jabu sekk la saint kii nag mooy doomam di Ndeye Fatou Fall moom mooy càttam waaye nag day way Ndeye Fatou bu ñaw na musique doon loo xamante ni lu mu bëgg la bi ñu inauguré école Samba Ndiémé Sow la tàmbali way mu jàpp ni boobu ba léegi mi ngi ci musique bi yuuxu way delluwaat yuuxu way mënu dem ma eggale way ma eggale ko way booba mu ngi naan booba mu ngi naan yërëm dee la ji Masamba ne la ji buur la woon. moom Ndeye Fatou Fall wër na fu nekk ci àdduna bi ca Mali ca Mauritanie ak itam ci yeneen réew ngir mën a way. man damay tëgg fu ne laay tëgg partout dans le damay tëgg eh, Mali damay tëgg Nouakchott. Ndeye Fatou nag dafa nekkoon ci suufu ay artistes yu mag ku ci mel ni yaayam Jabu Seck Kumba Fall Léoni wala boog Ndoumbé Daour mu gis ni nag ñooñu bokk nañ ci ñi nga xamante ni tey jile ñoo ko tàggat. li nga fàtte na leen dem woy ndey faatu ci géej bu ñu ma làbbee ci géej bu ñu ma indee ma daal di way suñ ma neexalee ma daal di way air ba nu daal di yuuxoo way jànguma ko lu ma doon la sang la sama deret ndax dan nu toppatoowul dan nu dafa am négligence si ndar cër bu ñu war am ñun artiste ndar joxuñu nu ko Ndeye Fatou Fall nag ak carrière bi nga xamante ni def na ko ci wàllu musique day boole démb ak tey nag li mu bëgg mooy doomu ndaaj xam ni ñoom mën nañu way te ñu ngi ciy def waay TFM Sénégal Youssou Ndour Ndeye Fatou ñëw na ba diggi sama ma nga saame si di bint waali doro bi Youssou Ndour Ndeye Fatou ñëw na aywa mbokk yi ñu waxtaanee wàllug euh, caada jàppale ne nag euh, kaa fësal na app yi nga xam ne nag koy amal coupe d'Afrique euh, des nations atum 2025 ca Maroc xam ngeen ne nag daañu ko amal ñaar fukki fan ak ben ci weeru décembre atum 2025 J'app fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atum 2026 lu ne mel bokk na ci kàddu yi nga xam ne nag wala bokk loolee la ñu fësal mu soxal wàllug tàggat yaram mbokk fii la jaar daal di yëkkati jotaay wi dig daje léegi léegi ak rédaction bu télévision Futurs Médias Dieynaba Seydou Ba dina fi teew jukki leen xibaar yi euh, ci français man itam ma jox leen daje ni ki ëllëg incha allah benn waxtu ak itam 19h30 dina fi teew euh, jukki leen xibaar yi ci kàllaamay kocc jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm